danger pour le pays. D'abord, comment il a été choisi Il a été choisi sur des bases de parenté, sur des bases régionales, régionalistes. Il a été choisi par Macky Sall uniquement sur cette base. Et ce n'est pas nouveau dans la manière de Macky Sall de conduire les choses pour venir faire le sale boulot qu'il a fait. Ensuite, pourquoi il a été choisi Il a été choisi parce que dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Omar Maham Diallo de ce dossier. Il était un juge à Ziguinchor. Il était un juge à Ziguinchor. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il les fait bien. parce que rien ne pouvait faire penser que M. Sambassal, qui était relativement jeune, allait décéder dans le temps qu'on connaît et que peut-être Macky Sall, après avoir cherché pendant huit mois l'homme qu'il lui fallait pour exécuter la sale besogne, allait chercher Omar Maham Diallo à Ziguinchor. Et c'est parce qu'il ne s'y attendait pas qu'il avait publié sur sa page Facebook un texte à charge contre ma personne. Un texte qui a été écrit par un militant de la paire qui est, qui vit, je crois, en France, qui passe tout son temps à dire du mal de moi et qui se trouverait être son beau-frère et un juge astreint à un certain nombre d'obligations, particulièrement dans un dossier en cours en justice, ce juge-là s'est permis de publier sur sa page Facebook un texte à charge qui me condamnait et qui m'envoyait même directement en prison. Pensez-vous que qu'il soit normal huit mois plus tard qu'on aille chercher ce même juge pour lui confier ce dossier? Et c'est pourquoi on ne pouvait rien attendre d'autre de Omar Maham Diallo. Le jour où je suis entré dans son bureau pour la première fois et que je vois que le bureau était totalement euh, humidifié d'eau, d'eau bénite ou d'eau maudite, je ne sais pas, en tout cas de Safara. Et quand je me suis mis en face d'un juge qui est allé se faire euh, des sparadraps et je ne sais quoi à la main, parce qu'on lui avait dit qu'il faut pas serrer la main à son coin, et je n'étais pas venu pour lui serrer la main d'ailleurs, j'ai compris que ce monsieur était venu en mission commandée qu'il ferait semblant d'instruire un dossier, mais que euh, son ordonnance était déjà prise depuis très longtemps et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Il a pris son ordonnance pour continuer un projet que Macky Sall son ministère de la Justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu que ils ont commencé, sous prétexte de faire des travaux au tribunal, à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès, alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. Vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebeuss ou je ne sais où, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. L'attitude de ce juge est déplorable et n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier, alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge. On n'a jamais vu un dossier de ce genre dans l'histoire judiciaire du monde, je dis. Un dossier qui se présente comme ça et qu'un juge d'instruction ose renvoyer. Il n'a même pas osé suivre la procédure. C'est par mail qu'il a envoyé aux avocats pour leur dire que je renvoie. C'est extrêmement grave. Comment est-ce qu'un juge peut mettre à l'écart le rapport interne de la gendarmerie La gendarmerie, c'est un corps d'élite. Et c'est la gendarmerie qui a fait l'enquête préalable, l'enquête préliminaire. Quand le problème s'est posé et qu'il y a eu le cas capitaine Touré, le général Tin, en bon soldat, a dit la gendarmerie par essence, ce qui le caractérise, c'est l'honneur. Et cette affaire risque d'éclabousser l'honneur de la gendarmerie. Nous allons mettre en place une commission d'enquête qui va édifier sur la responsabilité des uns et des autres, et particulièrement le capitaine Touré qui avait conduit l'enquête. Ce rapport sera public très bientôt, rassurez-vous. Il nous a été demandé partout. Depuis quelque temps, beaucoup d'organismes internationaux nous ont demandé les éléments du dossier, et mais les avocats sont en train de leur transmettre tous les éléments. Mais le peuple sénégalais aura tous ces éléments parce que nous avons l'intégralité Et ce rapport, je l'ai moi-même main à main remis à M. Omar Maham Diallo. Un rapport qui dit que M. Bassirou a délibérément compromis le rapport initial dressé par le capitaine Touré pour y mettre des éléments à charge. Il est allé jusqu'à y mettre des photos obscènes qui n'avaient rien à voir avec le rapport initial. mais il ajoutait également des passages, il retranchait des passages qui me déchargeaient. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence un rapport comme ça pour dire qu'il renvoie un dossier Monsieur Omar Maham Diallo a passé sous silence le témoignage du docteur Alfousséni Gaye, qui est le médecin qui a euh, consulté la plaignante. Docteur Alfousseni Gueye a fait un témoignage devant le juge d'instruction pour dire qu'il n'a vu rien qui puisse renvoyer même, qui puisse faire penser à, à, à l'existence d'un viol. Et, série sur le gâteau, il a enfoncé les comploteurs en disant que C'est Maître Sceau qui l'a appelé pour lui dire d'aller prendre la plaignante parce qu'elle était en danger de mort. Et que c'est Maître Sceau et Mamour Diallo qui l'ont appelé instamment le lendemain pour exiger le rapport médical et qui ont envoyé une personne avec un sac plein d'argent pour essayer de le corrompre dans le sens de l'établissement d'un rapport de complaisance. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer à silence, sous silence des témoignages aussi accablants et aussi à décharge pour renvoyer un dossier en jugement Comment ce juge d'instruction a pu passer sous silence un certificat médical que tout le Sénégal a vu Un certificat médical établi par ce même docteur Gay, qui aujourd'hui est menacé de mort et persécuté Sa voiture a été attaquée. Il a déposé des plaintes à la gendarmerie. Personne n'a daigné réagir. Comment est-ce qu'un un, un, un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence ce certificat médical qui écarte toute possibilité de viol Je crois que désormais, il faut que tous les Sénégalais sachent qu'ils sont en danger. qu'aujourd'hui, ce n'est plus la, peine d'amener des preuves en justice parce que ça ne sert à absolument rien. Dès que la commande politique tombe, toute preuve que vous amènerez sera écartée et votre accusateur n'aura pas besoin d'amener des preuves dès lors que Macky dit que ma volonté, c'est que vous fassiez ceci. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tous les témoignages des personnes qui travaillaient dans cet institut et qui sont tous des témoignages à, à décharge. Il n'y a pas un seul témoignage à charge contre nous. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tout cela? Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence les témoignages du capitaine Touré, qui est à la base du PV, qui a servi à sa saisine, même si ce PV a été compromis? par Ne serait-ce que pour ces deux raisons, ce dossier n'aurait jamais dû atterrir là où il est. C'est-à-dire le PV qui a servi à saisir le juge d'instruction est un faux. Vous ne pouvez pas instruire sur la base d'un faux. Et la deuxième chose, le juge qui a hérité du dossier est disqualifié pour le faire parce qu'il est partisan. Il avait déjà pris une position sans connaître le dossier et sans que le dossier lui soit affecté il avait pris une, dossier, une position pour m'envoyer en instruction. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer les, té les témoignages de, de, de, du capitaine Touré Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut faire l'omerta sur les éléments importants qui ont été versés par euh, M. M. Signas Vous tous, vous avez entendu ces audios où la plaignante elle-même dit qu'il n'y a jamais eu de viol, qu'il n'y a même jamais eu de rapport sexuel, que malgré tout, on lui a dit débrouille-toi pour nous chercher, chercher du sperme et venir. Et ce juge d'instruction qui convoque la plaignante sur la base des audios, qui lui fait entendre ses audios. Nous avons tout le dossier dans ma machine. La plaignante lui confirme que c'est moi qui ai bien dit ça, mais je m'amusais. Vous avez entendu? qui confirme les audios de MC Niass, dans lesquels elle-même reconnaissait qu'il n'y a jamais eu le, euh, le, euh, le, le, motif qu'elle qu qu me collait, comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer tout ça Tout ça pour revenir renvoyer un dossier. Comment est-ce qu'un juge d'instruction qui a des réquisitions téléphoniques lesquelles réquisitions téléphoniques montrent les trafics qu'il y a eu, les trafics, les appels qu'il y a eu entre les différents protagonistes de, du complot, avant, pendant et après l'événement, aux heures même concernées, entre Mamour Diallo, Maître Gabisso, euh, le convoyeur, le Sidi Ahmed Mbaye, la plaignante, Comment est-ce qu'un juge peut avoir tous ces éléments-là et renvoyer ce dossier en procès Il n'a même pas instruit. Il faut, il, vous, tous les éléments seront rendus publics. Quand vous lirez l'audition de Mamour c'est ridicule. Vous convoquez une personne qui a été citée dans un dossier avec des audios, avec des réquisitions téléphoniques. Vous laissez la personne dire ce qu'elle veut, elle dit non, je n'ai rien à dire, Mais s'il y a une plainte contre moi, là, je viens de répondre, mais mes avocats m'ont dit de ne pas répondre. Vous la faites signer et elle part. Ça, c'est de l'instruction. Ça, c'est de l'instruction. Même pas des questions de relance sur les différents éléments qui chargeaient cette personne par rapport à sa participation dans un complot. Cet, cet homme, Omar Maham Diallo, est un politicien. Je le considère désormais, et tous les gens qui sont avec moi, comme étant simplement un adversaire politique qui, a exécuté une commande politique. Et il faudra qu'il en assume toutes les conséquences. Il faut qu'il assume sa responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait se passer. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils rendront compte tôt ou tard. Parce qu'il faut que les magistrats de ce pays comprennent que ils n'ont pas un blanc-seing pour faire ce qu'ils veulent. Ils doivent appliquer la loi et exclusivement la loi. Notre parti politique, PASTEF, l'opposition de manière générale, souffre beaucoup du comportement des magistrats de ce pays. Aujourd'hui, notre adversaire, ce n'est plus Macky C'est des magistrats, je ne dis pas tous les magistrats Parce que nous n'avons pas eu affaire à tous les magistrats pour pouvoir apprécier. Et je demeure convaincu qu'il y en a qui font correctement leur travail. Mais les, les statistiques montrent que tous les magistrats auxquels on a eu affaire jusqu'à présent sont des magistrats qui ont exécuté des ordres qui sont dans la persécution. avant-hier et hier, j'étais au camp pénal, j'étais au pavillon spécial et hier j'étais à Rebeuss pour voir tous nos détenus politiques. Mais ce qui se passe dans ce pays est innommable. Vous prenez les gens, vous les envoyez en prison pendant sept mois. Vous ne les entendez pas dans le fond. Vous ne leur posez aucune question. Vous chargez un dossier. À l'enquête, maintenant, ce qu'on dit aux gens, pourquoi vous êtes de passif Pourquoi vous êtes allé en Casamance Ou pourquoi vous êtes de telle ethnie C'est les questions qu'on pose aux gens dans l'enquête. Des gens qui sont de Dakar, de Saint-Louis, de Djurbel. On leur dit pourquoi tu es en Casamance à deux reprises. Comme si c'était un crime d'aller en Casamance aujourd'hui. Voilà à quoi une partie de notre justice est réduite aujourd'hui. Et je dis que le principal adversaire aujourd'hui de PASTEF, de notre combat politique et de l'opposition, ce n'est pas Macky Parce que Macky Sall sait que politiquement, nous sommes beaucoup plus puissants que lui dans ce pays. C'est la justice qu'il instrumentalise pour s'attaquer à nous. Ce juge a refusé, après avoir fait tous ces dénis, notre demande, la demande de nos avocats, pour que les avocats impliqués dans ce complot soient entendus. Mais un avocat, c'est un citoyen sénégalais. On nous parle de euh, d'immunité. Mais moi, en tant que député, l'immunité d'un député n'est pas moins forte que l'immunité d'un avocat. C'est en 72 heures qu'ils sont débrouillés pour lever mon immunité. C'est unique dans l'histoire mondiale. 72 heures la requête du parquet, l'instruction du général et la levée de l'immunité parlementaire à l'Assemblée, il leur a fallu juste 72 heures, avec de violations de mes pourquoi un avocat qui complote avec des preuves évidentes, pourquoi cet avocat-là ne serait pas entendu C'est quoi cette histoire de corporatisme Le corps judiciaire, de manière générale, est-il mieux protégé que tous les autres corps Est-ce qu'un député qui a été élu par le peuple sénégalais doit avoir une immunité moins, moins, moins honorable et moins protégée qu'un avocat Hmm. nos avocats ont demandé à ce que Maître Sceaux et Maître Georgian soient entendus parce que leur